mbokk yi jërëjëf mbokk yi seetaan la 2STV gis nga loolu mbokk yi moom mooy présentation wu Modou Xarañ Lo gis nga présentation bi mais balaa ñoo dugg ci présentation bi ak waxtaan bi actualité oblige tey jii la doomu Sénégal jël ballon d'or Sadio Mané ballon d'or africain bi ñu jox ko ko yow mus nga téye flamme olympique ce qui veut yóbbu nga drapeau Sénégal. Mm-hmm. fu sori. Mm-hmm. moom it mu def ko tey. Mm-hmm. tey loo wax ci loolu en tant que sénégalais. waaw di ko rafetlu di féliciter Sadio Mané. xam nga parce que lii lañ doon ñaan. xam nga yàlla def nga ko tey alhamdulilah. da koo mérité xam nga. wax dëgg ku ñu dem ba di ko tëkkaleeg Messi ci ci football xam nga dinaa wax mooy premier wala mooy deuxième. kooku jàmbaar la. vraiment di ko féliciter di ko ñaan xam nga mu ko te yéen a keneen incha allah topp ci bii di ñëw incha mu jël ballon d'or ballon ballon ballon nu bu mag bi ballon bu mag bi. amiin xam nga. amiin vraiment mérité na ko xam nga liggéeyam rafet na jàmbaar la. Sadio Mané mooy mooy suñu joueur mooy sénégalais bi mais daaw bi mu dóoree Barcelone noo def. Sadio moom wax dëgg yàlla moom mooy suñu joueur quoi puisque moom la ñoom xam nga. Ah. ay mooy leader équipe bi macha allah. waaw yal na yéen bi woyof ci kawam xam nga te yàlla defal ko daal xéewal. mu yàgg di boot équipe bi incha allah ak ay dam.